di bañ loo xam ni moom la politique di bañ mooy loo xam ni day jóge ci kaw di ñëw ci base bi politique bu bees bi xew day li décision bi day jóge ci base bi dem ci kaw ñu gis que ni conseil yi ñu war a yóbbu ci haut conseil des collectivités territoriales Thiès comme ni ko tiwaawan defee Fuuta def ko Kaolack def ko nga xam ne responsable dañoo dajaloo ak responsable de base yi toog waxtaane ko ba trouver consensus ñu trouver wul consensus ñu dellu ci président ni ko na arbitré dañoo gis ni ñun Thiès la ñu sonaloon ci local yi loolu moo ñëwaat tey jii mooy ñi nga xam ni dañ ni ñoom ay responsable lañ parce que dañ leen a jox ay ndomba tànk ñu dajaloo dakaar guddi tëju def seen réunion kooku Demba Diouf ci la bokk Augustin Tine ci la bokk. docteur Ndiaye ci la bokk ak ñeneen responsable Maodo Malick mbay coalition bi ñëpp a ngi fa woon ak du mbaw ak euh, Ousseynou Kayta Maodo Malick Mbaye bu Ndiégène ñoom ñëpp ñëwoon nañu ci réunion ba mais bi ñuy ñëwee ci réunion bi ak les quinze maires du département yi nga xam ni bokk nañu APR maire du département bi yëpp a ngi fa woon li ñu wax nag mooy dañ faa dajaloo doon complot base bi far yàlla sottalul seen complot boobu moo tax ñuy alerter président ni leen ñun du ñu nangu ay nit toog ndakaaru di ñu décideel naan diw la ñuy fal diw la ñuy folli te alors que su liggéeyu base jotee jeunes yi ñoo koy def ak jigéen ñi ci biir loolu dañ ñoo octroyé ñetti siège ci biir Thiès département ñaari d'accord nañu mu dem ci département bi ndax ñoom douze communes lañu léegi bi ñu d'accordee loolu ñoom seen biir ñoom waa département bi jubooguñu ci kan ak kan la ñu war a fal Thiès tamit benn siège lañ ñu jox ñu ni siège boobu benn jigéen moo ko war a jël bi ñu demee ci biir discussion yooyu d'après les informations yi ñu am ñoom dafa am ku ñu ku ci kenn ku ci ne da ngaa am sa poulain fal ko ni moom nga proposé Thierno am na ku mu proposé Ousse euh, Demba Diouf am na ku mu proposé. Maodo Malick mbay am na ko mu proposé ci mouvement am comme suppléant ñooñu ñëpp ñu proposé ñun jàpp nañ ni suñu leen validé loolu ñu proposé ñun duñ ko nangu ndax lu tax ci biir discussion yi bi ñu demee ba ci biir Augustin dafa wax ci làmmiñu boppam ni Thierno Sall moom mooy décider ci waa commune li ki ñu bëgg a fal te alors que dañ ni comme commune Thiès Est moo gën a néew ay responsable te gis nañu ko saa bu ñëwee. dañ koy ñàkk ñu ni nañu renforcer kon jigéen ñooñu mais li gën a jaadu mooy képp koo xam ni conseil municipal nga te war a mën a falu li doon yoon mooy ñu woo leen dajale leen ñi leen yéen kat au conseil bi jox nañ ñu ñetti ñetti place waaye ñaari département bi jël nañ ko ñaari benn bi la commune bi moom waxtaan leen seen biir yéen ñi mën a falu ngeen proposé ñu kenn seen biir suñu waxtaanee juboowuñu ñu dem ci élection suñu demee vote jubóowuñu nag su boobaa responsable yi ci la ñuy soog a d'accord ñoom ñu jël seen responsabilité su leen jéggee nag ñu jox président mu arbitré loolu mooy démocratie waaye fii ñu toll weesu nañu ay nit di tëju ci ruq te tëju boobu Siré euh, Dia fekkewu ko Maysa Diouf secrétaire élu la moom donc mooy benn nitu APR bu nekk secrétaire élu ci bureau conseil départemental nekk coordonnateur commune Ndiéyène Sirakh yëgul réunion bi baas bi yëguñu ko ñu ñu ni loolu nag jaaduwul suñu bàyyee liy jàll ëllëg 2017 bii ñu jëm ci ay élection législative la ñu jëm te suñu defaatee lu mel ni frustration dina am ndax tey jii am na ñoo xam ne ay conseil APR lañu pare nañu pour quitter le parti dem rejoindre réew mi wala grand parti su fekkee lii jàll na ci lu wér te wóor donc te duñu nangu tamit waxoon nañ ko ñoom complot woon nañu bi ñuy jub référendum yi daje woon nit ñi ni euh, Daniel Brochet ni Augustin na dem département Thierno la ñëw ci commune bi ñu fal la ministre ak ñu fal la PCA ak ñu fal la député ñun moom la ñu yemale ki ñuy jiite day nekk ku amal njariñ bi askan wi ki ñuy jiite day nekk ku populaire ki ñuy jiite day nekk koo xam ne dañ koy gis la ñu waxoon ceeb bi référendum bi jub see ñun commune bi du ñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg dañoo bëgg mu leer président tamit waxul ni Thierno Sall jiiteel commune de Thiès wax ko ñu dégg ko tëjuwul ci néeg wax ko bindul courrier envoyé ñu ko kon su kenn ku ne ku la neex mën ngaa dem Dakar yenn fa suba ba ngoon soo ñëwee ni ma la président maa di wala président woo na ma téléphone loolu dafay yomb président nee na na diw jiite fii rek gisuñu këyit président waxul président bindul loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñu ngi wax Augustin Tine ak Thierno Sall complot boobu ñu bëgg a def parce que ñun jàpp nañ ni comme ba Augustin bi Thierno di défendre moom nitam ci est bi Augustin da ko appuyer pour que moom mu nitam boobu jàll ñun ñu ngi wax Augustin di wax ñëpp ku mu mënti toll ni ko d'accord ruñu d'accord ruñu tey d'accord ruñu ëllëg ki ñuy jël dañ ni commune est la war a jóge su dee commune est lañ fa war a jëlee Thierno Sall donte am na fa ay militants il n'est pas responsable ci commune est responsable la ci commune ouest comme sàggan na ba ñu waxtaanee ba ni dañ koy yóbbu est ñëpp d'accord ci moom yoonam nekkul ci conseil buy jóge est di dem ci o conseil des collectivités toritorial su loolu amee j'espère que responsable yi nekk est en l'occurrence Siré Dia Maodo Malick Mbaye Ousseynou Kayta bu pees ak Abdou Mbow ñoom ñoo war a toog ñu ni diw ak diw ay jigéen lañu te ci conseil municipal bi lañu bokk yéen ñii kat nañu xool kan moo gën a yoyoo dem ci wala waxtaan leen kon Thier Thierno Sall éliminé nañ ko moom d'office kàddoom ak xalaatam ak waxam do éliminé nañ ko parce que du coordinateur communal du coordinateur Thiès du coordinateur ca Thiès Est te Thiès Est ñoom la ñu d'accord pour ñu jël ñu jël cër bi kon li ñu bëgg président xam ko mooy comme est la ñu jëm conseil municipal conseil municipal yi nga xam ni ci est la ñu bokk te nekk ay jigéen nañ leen dajale woo responsable politique yi nekk est bokk ci coalition Bennoo Bokk Yaakaar ak ci biir APR ñu toog waxtaanee lool su lool su amee jàmm dina am te ñu bàyyi ñoo gëmloo ay waxi picc Thierno sàll président nee na yaa jiite commune bi loolu moom. du am ilaa yow mi diin ndax kii jiite commune bi day nekk koo xam ni dafa mën a créer emploi kii jiite commune bi day nekk koo xam ni dafa war a jàppale jigéen ñi kii jiite commune bi dafa war a nekk koo xam ni dafa jegele population bi kii jiite commune bi dafa war a amal njariñ commune bi accessible mais nit koo xam ni commune de Thiès yëpp yëpp soo calculer ñi fi am sa numéro téléphone matuñu ñetti nit nga ni da ngaa bëgg a jiite nit ñi loolu jaaduwul jékkul te du dem loolu nag loolu lu ñu gën a li ñu gën a woote ndax ku ko ku ko mën a nekk wërsëgam lay doon ki ko war a nekk moom kenn mënul ak wax jeeg wër-wërloo bi yàlla noppi na ba pare cëram lay doon waaye nag lu ñu mënta nangu mooy ñu dajaloo ndakaaru rek def seen complot ni Macky Sall nee na na Thierno jiite ñu def ko séddale séddalee tukulóor ak séeréer ñu ñu fexe ba juboo séeréer bi demal ci département bi tukulóor bi ñëwal ci commune bi olof yi soose yi ñoom ñu jàpp jàpp suñu njàmbur loolu duñ ko nangu ñu ngi koy wax président nag Thiès su fekkee benn kilifa lay am mooy kilifa bi ëpp njariñ ci Thiès kenn lay doon suñu waxee rek te yàlla tax waxuñu ci par parloo ñu génnee en terme d'action xam nga politique sociale la politique créer emploi la parce que dañ ni politique da ngaa war a jariñ sa askan nañu xool ki ëpp li mu jariñ askanam concrètement suñ ko làmbee daj suñ ko xoolee gis ñu jiital kooku suñ ko defee jàmm ni ñooy te kooku nag suñ ko doon génnee tey dëgg rek suñ koy wax te yàlla tax koo xam ni créé na plus de deux cent emplois jumaa yi néew na jumaa jooy dem ñu ni la yónneewu fa alal néew na kuy am problème fëgg ko te saafarawu ko ASC e yi moom la ñu sentir ODCAV yi moom la ñu sentir artistes yi moom la ñu sentir kooku nag su ñuy joxee nag dëgg dëgg dëgg ay cër kooku lañ ko war a njëkk a jox j'espère que loolu ñun la ñu amoon ci loo xam ni moom la ñu wax ci déclaration bi di wax ni daal arbitrage bi président na ko defal boppam na alerte ay responsable am ñi nga xam ni depuis ba ñu nekk opposition ba tey ci xuloo ak xeex la ñu nekk te luy fragiliser luy fragiliser parti bi lii ci la bokk ndax su ñu demee ba ay nit bokk ci parti bi di di wax ni dañuy waaj a quitter APR ndax ay choix yu bon loolu danger la te gis nañu fan yi ci benn presse en ligne ministre bii ñuy wax Thierno cent vingt-sept personnes jóge ci groupement dem dem réew mi loolu musiba ak catastrophe politique mënu ko gën a rëy ndax damaa yaakaar ni nit day jóge ci opposition ñëw ci parti pouvar mais ñuy jóge ci parti pouvar di dem ci opposition danger ak catastrophe mënu koo weesu te suñu demee ba Insa Sankhare di recruter ay ay ay nitu Thierno Sall loolu danger la du question dañ ko compte wala bëgguñu mu mu doxal suñu sañoon ñëpp doxal mais lu jaadu kenn ku ne xam na ni jaadu na loolu lañu amoon lu ñu ciy wax ñu bàyyi Ibou Diouf complété tuuti ñu seen sant di leen gërëm. en tant que jeunesse républicain euh, dañu nekk ci parti boo xam ni. ñëpp xam nañ ni parti bi doxee biir Thiès li ñu daloon au début dafa mel ni moo ñuy bëgg a dal ci fin bi te fi ñu jëm dañu war a dañu war a dañu war a am ndam ñun je pense que ñu xoolee suñu doxin amul lenn lu ñu xëccoo ci parti bi haut conseil o député amul lenn lu ñu mën a sonal leader yi na leen ñun dañ ci boq wala ñu bokk ci liste te bu élection jotee gis nañ si ndaw ñi niñ ci taxawee dinañ def campagne niñ ko war a defee dinañ gagné donc suñ jëmee ci loo xam ne benn nit la ñu soxla suñu commune amuñu problème bi donc ñëpp d' accord nañ na génn ci est bi suñu demee bay wut ay benn nit buy jógee ci est bi ñun d' accord nañ ci parce que est bi ku ne xam na ne bëriwul ay responsabilité yu fa am su fa Pape nekkee nekk coordonnateur bi ñun Pape Siré Dia bu ñuy wax euh, coordonnateur u Thiès kenn ko wax kenn patron wu parti bi lañ parce que parti boo gis dafay am patron loolu yaa koy xeexal sa bopp président du ko désigner Thierno Sall bi ñu jëmee ci élection locale yi àndul woon sax ak liste Benno Bokk Yaakaar bi ci est bi kon tey su fekkee dafa bëgg a jël benn conseil municipal bu fa nekk di ko jàppale kon donc su pexeem jiboon tey loolu du fa am da doon xeex Benno Bokk Yaakaar ci est liste ba fa amoon amul benn conseiller donc ñun euh, dàq ko ci ay coordonnateur communal loolu jaakaar naa sax jarul koy wax moom président musul taxaw ne Thierno nga jiite commune Thiès wala et cetera donc loolu moom soo ko waxoon je pense que Thierno Sall amul fitu fit bu ñëw dugg ci commune bi ne daf koy coordonné donc dama jàpp ne quarantaine su réeroon Thiès mun na fi yendu kofor du xam kii mooy kan ministre la na liggéey liggéey mais en politique man maay coordonnateur du comité électoral bu Thiès Ouest Thiès Ouest la dëkk xam nañ ku nekk kii kii président nag kenn du ko jàngal politique ñun li ñuy wax mooy bu mu dugal loxoom Thierno Sall bu mu dugal loxoom ci lii comme Thiès Est lañ bëgg a yóbbu mbir mi ñëpp on est mais na bàyyi ak waa Thiès Est ñu lijjanti problème boobu yemu man ak si Thierno man su may wax damay wax ñoom leader yëpp yi dajale woon dama ciy génne Pape Siré Dia mi fa teewul loon wala su fa teewee sax moom bokk ci parce que damay wax au delà de Thierno Sall muy Augustin Tine muy Abdou Mbow muy Thierno Alassane Sall muy Demba Diouf ndaay mais même pied d'égalité politique lobbying yoru ko nañ ñëw waxtaan ak ñun ñun sonaluñu leen bokkuñu ak yeneen responsable jeunes yi nga xam ne leen di wax ne dañu bëgg a bokk fii wala bëgguñu ñun bëggluñu dara dañu bëgg parti bi am ndam parce que dañuy yeewoo cees di fi jàngoonteeg ñoo xamante ne ñoom ñoo fi yore pouvoir bi euh, euh, local bi dañu war a am ndam mais suñu gisee suñu ay suñu ay femmes yu dynamique taxaw bàyyi suñu parti tey ne bëggatuñu ñu ne li tax ñu ne responsable bi ñu booleel muy Thierno Sall la ñu bëggatul a gis loolu ñun war nañoo taxawaat ak beneen taxawaay suñ nekkee ay ndaw dañoo xëy dem seeti leen ne leen lan moo tax ngeen bàyyi ñu wax ñu loolu te dinañ ci dox ay jéego ba ñu dugaat suñu biir parti ànd ak Pape Siradia bi nga xam ne moo nekk seen xool te gisaguñu ko ñu ànd pour jàppale président de la république donc ñun li ñuy wax c'est clair dañ ne na daal am ci ci parti bi ay affaire conseil territorial yàq suñu parti ñun nañu daal ànd ak suñu sago jàppale président Thierno Sall génne mbiram ci euh, euh, loxoom loxoom ci biir mbir mi su suñu bëggee am ndam ci li ñu jëm parce que musul jàppale musul jàppale liste boobu ci Thiès Est musul am donc daf ko doon xeex Augustin aussi na génne loxoom suñu biir commune mi ngi ci lu ko doy na ko lijjanti foofu mu bàyyi ñu ak sunu commune suñu commune ki élargir par même su ko président désigné wul bi dina wane loolu mu am patron ñu jàppale ko pour ñu mën a am ndam ci élection yi nga xamante ne ci lañ jëm mais waruñu ci nekk di xeex ba suñu ay noon dañu rey loolu mooy moo doon ma ci doon jàllale